yéen ñàkk jom yéen ñi def jëf ju ñaaw ji yéen a ñàkk jom ah avant tout nag yaa awoon na bu nga ñu sa bopp de ndax ñun waxkat yi yëguñ ngoro gi de koy ngorol ku la takk man de xuloon naa ci sax dama yaakaaroon ne ndax euh, tournage la ñu ne ma mariage la yow xam nga ne man dama la bëgg avant tout heure de ménage na sëy bi barkeel jigéen amul lu dul robbam bu weex bii jigéen amul lu dul bésam nit sax laay wax amul lu dul bésam ngeen dem ba ci bésu jàmbur di fa yéen ñàkk jom yéen ay mala yéen a judd ci gëlëm nàmp ci mbaam nit amul lu dul bésam du ngeen dusal nit ki bésam bi yéen nit ki lu mu dugal ngeen commentaire topp ko topp ko topp ko yaawa dundam gi yëpp maanaam fitna la ngeen topp ko topp ko dem ba ci bésam nag nga xam ne tey nag la war a bànneexu ngeen di xeex sëy bu ñuy xeex dangeen doon xeex lu ngeen mel ni ku ne ci filmu indo yi yaa awa heure man nit ki bu bëggee yaayam rek dama koy bëgg te yow xam nga ne man dama la bëgg donc yàlla na yàlla defal la